way yow. looy jàmbatati yow da nga lay wax man mu yóogu ma waaye yow saytaane nga. <laughs> wóor na yàlla saytaane nga ndax yow fi saytaane ngay wax. ndax yi ngay wax da nga maa bëgg a yëngal. non dafa bëgg a yëngal. su waxee ay maa ngi nuyu. ay ay Xaadim Njaay maa ngi nuyu ay Boy Niang. voilà ah, voilà. wala yow foofu nga dëkk. yow ci biir waxtaan yow moom dëkkul foofu. moom Kër Massar la waaw voilà. saytaane la saytaane la buñ la xaar xam nga ne saytaane la ndax li mu wax moo tax mu wax biti ok man nuyoo gu ma waaye li mu wax moo tax ma tontu ko loolu ma waaw waaw dëgg la kañ Omar yow bàyyi tooñ nit du tooñ nuyool te joxe maa joxaat ma kàddu gi vraiment nag man mënu ma nekk di arrangé ay problème gi ñuy wax wàññeeku fa démb 175 leen génnee genn wàllu bar suukar tey ban xëyee moom lañ jëndeewaat te ñu ne mais est-ce que tamit du service yi nan wàcc Kër Massar Kër Massar moom dafa mel ne beneen réew la ci ah, Sénégal kii moom lay waxtaanee dinañ ci ñëw ci waxtaan waaw waaw di nuyu bu baax waa waa Thiaroye yi ñëpp maa ngi leen di ziar c'est vraiment nag Omar nag yow sikki nga nag waaw léegi ah biti eh, yow lan moo waral mu wax loolu man te xaw ma ko après te moom dëkkul foofu moom dina xaw ma ko man géej waay laa juddoo waaw léegi yow jë xam nga ni ku mel ne yow du dëkk géejawaay de. <laughs> mën a tooñ mën a jaxase ku mel ne yow du dëkk géejawaay de. damaa damaa gàddaay. <laughs> noppal na la soo gàddaay yaa xam. ga gàddaay fu woon. noppal na la ak sa gàddaay yaa xam. liiru. waaw déet amul may ma. waaw ñun nga arrêté ko. dinañ dugg ci ah, émission bi commencé gudd waaye mu ma waxagul dara na ma ko teg waaw waaw baax na ko teg. léegi boobu man suñ ko xamee maa tax. dëgg la. voilà. waaw may ñu kon nag sa arrête. waaw arrête yow moo kii arrête hmm. waaw kii eh, maa ngi lay nuyu ma jigéen Diop Dieng Sala ci yàlla lii <laughs> maa ngi lay fay. koy reer ah man ka dama ah nuyool te jox ma yow it. man tey ah, damay yaru yii ay tooñ. xaaral rek maa ngi lay nuyu bu baax ajaratu di la ziar di la ñaanal jàmm ju sa tàkk di ko ñaanal. Euh, Oumar Sadiogo ak Lirou ganu Oumar maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ñaanal ñëpp jàmm dem ba di diwaanu Ceskaay benn dëkk ñaari benn aéroport ñaanal leen jàmm ñaanal ko sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacké mm-hmm. mu yàgg fi lool ànd ak weer yàlla suñ borom defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram ajaratu comme ni ma la ko waxee woon nag tey moom mm-hmm. vraiment damay àbb cour de cœur yu Oumar yi damay ñaxtu eh. ndaxte li xew si Dakar dem dikk fa dëgg yàlla à chaque fois maa ngi la koy expliquer. Mm-hmm. metti na trop euh, parce que parfois da ngay xëy par exemple nga dem fa 5 euh, heures 45. Mm-hmm. keroog dama obligé. mooy yiy jóge Thiès di ñëw Dakar di dem Thiès. si gare bi fii Colobane. Thiès dama xëy. six heures mooy laa fa àgg ba sept heures hmm. mënuñu am oto bu départ parce que lan ay problème mu caissier bi moo waroon gont ki moo waroon xëy xam nga ni ah, loolu jaaduwul te ah, yow yaa ngi yor euh, euh, li nga xamante ne nii waa liggéeyu jàmbur du man kase am na ñu bëri ñu nga xam ne dañuy mujj obligé gedd dem wuti yeneen oto yoo xamante ne nii feneen nañ ko jëlee te loolu jaaduwul jekkul beneen bi si topp topp si ngoon bi maa ngi war a ñibbi si si si vendredi bi ma wàcc fii jóge fi daanaka bi ma fiy jóge 17 jot na dem fa di heures et quart laa fa àgg bi ma àggee non seulement rang bi ma fekk génn na gaar ba ba hmm. nara àgg si ñi nga xamante ne nii ñoo di jaaykat yi ajaratu nga baal ma rek <laughs> ma ma ma ñaxtu ko <laughs> parce que lu ma lu ma soxal la 17 heures 17 heures ba 19 hmm. heures et quart ma oto ñu ranloo ñu foofu noonu ba ñu sonn euh, mujj gi dañu mujj obligé compter hmm. benn nombre de lim bi ne leen ñi ci des 17 heures ba 19 nga leen ñibbi leen parce que oto yi jeex na ñu dugg si oto bi non seulement oto bi am code phare yi tàkkul woon ñu ne fa di indi problème yoo xamante ne dem dikk bu bees bi dina ci jot ajab lay asugey mi yor cellule bi aussi dina ci jot parce que nag metti na jógal leen ci eh, client yi mm-hmm. alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar yow taabal ji tàng na waaye dégguma la ajaa ñu ngi lay fay <clears throat> ñu ngi am mbégte ak kontaante ci yow mm. waaw di dem ba Touba nuyu xalif général des mourides sëñ Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér waaye di ziar di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. Mhm. ñu koy ñaanal mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim na ca kër ga ak njaboot ga yëpp ñu ngi leen di mhm. nuyu. nuyu sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimul Axlaa mhm. di nuyu kilifa diine yi ci biir réew mi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm nuyu mama Jaynaba Fall. koy ziar kookoy borom Géejawaay. ñu koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu bu baax monsieur Lo kooku mhm. sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm mhm. di nuyu Omar macha allah mi nga xam ni tey dafa ñëw euh, di dal ci le grand ah. champion muy liiru macha allah Omar tooñ du gàllaaj parce am na loo mën na bu dee <laughs> <laughs> yéen ñaare yam rek man mënu leen ma kompaloo. mais tey yow la faral yii ngeen def yëpp dama ko xam. Ah. naa ko sa connais très bien. waa léegi liiru ma liiru maa ngi. Badou koy togg ci <laughs> xam naa lépp di nuyu la nuyu le grand champion liiru. macha allah nga xam ni carrière am moom euh, def na fi tegg ni tege def ci jaloore ju rëy benn erreur rek la mës a def muy arrière ba ca Gambie di nga xam ne. xam nga voilà waaw xaaral ma jox la nga nuyoo nga waxaale li nga bëgg wax liiru. liiru maa ngi lay nuyu di la dalal contentement bokk ak yow plateau dinaa la wax non parce que lay nuyu da ngay kon mais mais mais du sama copain waaw àggale liiru ah parce que coppee ma ak yow de ma ne benn erreur la mu def ci carrière muy kii bi mu def gàmm. loolu loolu rek. la kii di wax ni tamit vraiment moom ak xaadim. ku neex gis na ni nga xamante ne bii noonu la demee. vraiment ñu nekk yoo xam ne sama waay la indi wax xaadim non non mais liiru. ku gis liiru saytaane dong saytaane dong ñoo fi ay saytaane dong ñoo fi nekk. parce que boo nee liiru boo nee liiru ne xaadim. jéem di nuyu ma jigéen macha allah. di am ci moom mbégte kontaante waaye tamit di nuyu ñëpp di la wax liiru di vraiment. décourage lan loo may décourage la. lan laa lan lan laa defoon wala lan ma dama ma décourage. nee na nee na du courage. lu may découragé lu may encouragé. waaw léegi may ma liiru lan la ma am gàcce. liiru may encouragé waaw liiru. ah dama am gàcce ma la ñaan mos nga ma kaa may dama am gàcce ba may encouragé ma jigéen bàyyi jàmm ah, non moom def laa <laughs> wax non non moom bi damaa rek xuloo nga ak liiru maa ngi lay nuyu di la dalal amaat plaisir toog ak yow biti maa ngi lay fay ah, ok di la nuyu di nuyu waa kër gi yëpp ah. di la nuyu yow mm, tooñ moom du gàllaaj di nuyu kër gi sama kër la dëgg la walf ku ne xam na ma ak walf ndax tubaarikal am na su ñoo xam tey suñu leen xamee maa tax <laughs> waaw wëy comme kan ah xam na seen bopp ah ñaar lañu. waaw ñaar lañu. ah d'accord. ndax invité bu ne invité nan moo ko fi wallaay te su ma fi invité. damay daw ñëw damay waaw. damay daw ñëw. nga xam ne fii sama kër la. di ñaanal sunu papa ja Sidi Lamine yàlla na ko yàlla xaare àjjana. ku baaxoon ci dëkk bi. le 4 décembre lañ allah rabbi ñaa ñaanal yàlla ko yàlla xaare àjjana. di ñaanal doomam ji fi mu teg tànk bi foofu la. gis na liggéey bi Cheikh. rafet na trop yàlla na ko yàlla musal cet at làmmiñ. di leen ñaanal yéen ñëpp waa kër gi di leen nuyu di nuyu waa Géejawaay gëma jóge mhm. du nuyu Aliou Sall Sall ngaari buur gëralam tooro sama waa waaw ah, ba tey ok waaw d'accord waaw waaw du nee na maire woon waaw ah waaw maire la du nuyu Lat Diop mhm. directeur LONAS voilà dañ koo gañe moom sa waaw non c'est xam nga benn affaire du question ay gañe ñàkk gañe xam la mu am solo ci doomu aadama ndax soo dëkkee waaw soo dëkkee soo dëkkee ci gox soo dëkkee ci gox say nit lañ da ngay defar gox ba dëgg la te dafa dëkk ci gox ba pay di defar gox ba muy Lat Diop d'accord ah, di def ay social di jàppale xale yi. te man loolu laa man damaa dëkk géejawaay parce que damaa bëgg géejawaay. am ma ci sànq ñi dëkk géejawaay gàddaay na. ñi dem ñu dëkk géejawaay non si si si am na ñu dëkkoon géejawaay. lu am géejawaay lañ ko amee. ah tey jii dañoo gàddaay waaye noppal na la ñoo xam. kan moo gàddaay yow yow sax si nga bokk. man maa géejawaay yow dimbali ma. guddi nga fay dugg te soo ma dugg lee fi indi xam biti. mu ne. biti guddi nga fay dugg. biti guddi laay dégg yaa ngi may déglu. maa li may nekk géejawaay nekkoo ko géejawaay yow. fa laa yeewoo fa laa jóge nii la. bu ma yeewoo man. non ñun heure bi yow ñoom saa ñun xam na la bu ñu taxaw waxaay. damay nuyoo bàyyi ma àggale. yow ñun li ngay def soo ko ngoon ñun xam na ko bul ma waxloo bul ma tàng non non bul ma tàngaloo bul ma tàngaloo yaag sa waa ji. bu leen ma tàngaloo ok. da nga euh, biti. Mhm. di nuyu waa géejawaay gépp du nuy Modou Dieye seen sama waa ji. nuyu waa Asy émission bi jeexagul ba. waaw d'accord non non damay nuyoo géejawaay laa am géejawaay laay tiitaroo mm. moom laa ku nekk fa nga am ngay tiitaroo. ak Amadou Tidiane. waa ah, ah. sànq dafa wax euh, maire Dieng bu Fall. waaw kooku sunu yaay la ngay nekk waalo yàlla defal jàmm. amiin yaa bu baax la wax dëgg yàlla ak doomam yëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla man géejooy la am. d'accord man ko jàpp géejoo ma jàpp la. d'accord léegi dinañ ñëwaat waaw di nuyu ñu fa dëkk. ñëpp euh, di euh, nuyu monsieur le maire. waaw Ahmed Aïdara. Ahmed Aïdara waaw ndax moom wax na ko ndax xam naa ne fa la jëm. at Malick Gakou ñoom ñëpp ndax ñun géej lañ am géej la ñu tiitroo. Abdou Aziz Masata ñoom ñëpp. ah, ah ñoom Baye Ndiaye ñoom ñëpp non non géej lañ am géej la ñu tiitroo maa ko ñaanal yàlla ñoom Lac de Sa Thiès non damay joxe ñoom Sa Thiès xam naa ko dama koy xamal ni man géej la am géej la tiitroo keneen ku nu wax sama fou waaw d'accord jeex na may ma ko voilà di nuyu xale yi génn champion yi nekk génn yëpp yàlla na yàlla defal jàmm ati bisimilah régi yàlla lii Omar Gueye. <laughs> waaw liiroo ngoog laaj ko mu tontu la bu leen fi def benn kii. le grand waaw <laughs> <laughs> la bët bi day am. kon ma da nga koo bindaloon tur bi. amati jaan faa déedéet kii non non xam nga ma déglu ma dafa ndànk non non déglu ma déglu ma non non déglu ma ah. DMTA non non kii non non non DG DMTA non non Amadou Tidiane Fall DG DMTA directeur DMTA waaw xam nga tey fii dëkk bi soo fi nekkee di def lu baax di def ay social da la koy waxal man soxoruma fii ku def lu baax ñu wax ko ku fi def leen tam ñu wax ko Amadou Tidiane Fall directeur DMTA dafa def lu baax su def lu woon lu baax bu ma ko wax ñii dafa soxor ñii lay soxor dañoo soxor seen ñaawaay yu rëy yi ku gën a ñaaw soxor ñu def kuy concours ñaawaay li tax ngeen di denn xam ngeen ko. li xam nañ ko. Omar Omar kañ ngay laaj. bu leen bàyyi laaj leen ko. waa ji lii la waa ji dee na ma. Eh. waa ji dee na ma wóor na yàlla. da ngeen di ragal liiru boo tax du ngeen ko éviter. liiru ñun ragaluñ la. loolu man man waxuma ngeen ragal ma. Eh. waaye wax dafay rafet. wax dafay rafet non non wax dafay rafet non non xam nga problème ñëw naa tooguguma di nuyu ñoo xam ne dëkkuñu fi tooguñu ci plateau pourquoi ça pourquoi ça Omar yi eh, bàyyi ko pourquoi ça tegu ko fenn waaw waaye yow waaw léegi déglul mu laaj la bunta mais Lirou waaw xam ne yow bu ñu tuddee xaadim nga mer non non mais yow ci wàllu làmb xaadim mais da nga koy déglu làmb ku la jël teg xaadim Ndiaye xam ne Xaarim Njaay ak yéen doo leen ak yow doo leen benn. waaw waaw Xaarim Njaay bu dee ci làmb rek. ñu teg ko ci bañ a kaf. waaw du sa nawle ci làmb. waaw Xaarim Njaay yow mi yaa amul nawle yow. dafa bëri yow mi yaa amul nawle yow dimbali yow saytaane nga yow. dafa bëri nga ma nga waaye damaa fuu ci loolu. waaw su bëree ñooñu. su bëree ñooñu ngay wax noonu. Hmm. def loolu mu def ci man li mu def ci làmb man su ma ko defoon position bi mu taxawee woon du ko taxawee. position bi mu taxawee man du ma ko taxawee. ñàkk na fayda jann soo jógee nekk ci internet bi ratatat rek lu ñor mu wax lu ñor mu wax yow xoolal dimbali waa mooy papaay rek xanaa tey la nekk papaay rek ba muy man daa ba muy man la nekkoon si Kamal Salame Salame waaw dem ba mu dem dimbali ñu ñun géejawaay leen dëkk géejawaay leen juddoo falan màggee lu juif a jógee géejawaay xam te kenn du laal géejawaay. ku la tuddee monument géejawaay. sa yoon nekku ci képpel sa affaire. yaa ko tuddee sa bopp kenn tuddee wu ko dama li ma ci jaaxal mooy géejawaay waaw maa ko tuddee sa bopp maa tey. waaw maa ko tuddee sa bopp maa tey. maa ko tuddee sa bopp maa tey. erreur bi ñu def yow xoolal dimbali ma waaye. monument fee jël monument lu doy ne monument ñu ñu teg ko. ñu ñu tuddee ko ku dëgërul. luy dëgërul mbër muy daanu rek ñu tuddee ko monument mais mais monument dañ koy dañ koy tuddee mbër mu dëgër. yow laay waxal non amul ah ah ah non amul ah non dafa daan dama lay expliquer yow lan nga ma xamal yow daanu ah daanu non non da wax lu neex rek. Hmm. xamaloo ma tus. léegi ñaata xamaloo ma dara dama lay xamaloo ma dara. yow non déglu ma gis damay xamal benn affaire gis nga yéen. Hmm. ay saytaane ngeen. Ah. non non non. léegi yow non yow bokkoo ci biir. ah d'accord non ngeen di ay saytaane ngeen seen ñaawaay rëy yi li tax ñu leen di boole dina ngeen di dend loolu la. li tax ñu leen di boole ngeen den loolu la seen ñaawaay yu rëy yi moo tax ñu leen di boole ak ay saytaane ngeen moo tax ñu leen di boole ngeen di den teg teg Xaadim Njaay Xaadim Ndiaye moo la gën nekk monument par Xaadim Ndiaye dafa prouver ci làmb ji loo xam ne prouver ko. waaye ay Omar. gis nga ma xamal la benn affaire yow lii ngay wax nii. Hmm. tegoo ko fenn ndax yow dañoo contre nee nga géejaway nga dëkk dëkkatoo géejaway moo tax nga ñu nga contre ñu. Hmm. mais liiru man mënoo ñëw contre. liiru liiru ba mu saf ñu. waaw liiru dëgg ndax ñun lanu doon. yàllaa ko def. defuma ko. mais li xale ko yàlla la. waaw kon dañuy nangu. waaw da ngay déglu dañuy nangu. saytaane nga déglu ma ay saytaane. la barki Serigne Bamba saytaane la yow sa bopp yéen a yem yow saytaane nga. <laughs> nga yow ma mais da ñuy déglu. waaw dégg dégg li mais mais déglu ma mais yow yaa attaqué Xaadim Jaay man laa ko attaqué. man tudd moo ko fi yaa ko tudd. non moom lu ma koy tuddee fii toogu fi moo koy tudd yow yaa ko fi tudd man tudd ma ko yaa ko fi njëkkee. yow boo yaay nuyu di ko nuyu. boo amee droit ni yaay monument Guédiawaye yaay magu Sa Thiès. waaw Khadim Ndiaye amul droit ni mooy papa yi rek rek. moo xam xanaa tey la ko nangu xanaa tey la ko nangu loolu tey la nangu wax loolu ñoo xam ñoom ñoo xam seen affaire la man lijjantiwu ma leen faalewu ma leen man Guédiawaye la am Guédiawaye moo ma ñor. waaw mais mais Niru il faut nga déglu ñu. déglu ma Niru li ngay def nii. mbir bi loolu xa kii li wax. Hmm. daf ne la Xaadim Njaay bëri na ak Yékini waaw Xaadim Njaay bëri na ak Tafa Gueye feeñ ko feeñ bëri na ak Balla Bey Tafa Gueye bëri maanaam Xaadim Njaay képp kuy bër gu mag ak moom waa bëri na ak Eumeu Sène yow nag waa léegi dama lay laaj nga bëreel waaw may ma tuuti ça yow ñi nga bëreel kenn kenn lañ ci xam muy wuli waaw jërëjëf waaw merci jërëjëf maa tey waaw maa tey tey jërëjëf waa jërëjëf maa tey moom li ma dara ah yow saa mi ngi ñaaw de lu ko moom moo xam kii dafa soxor kii dafa iñaan dafa soxor xale bu ndaw di la seet yow yow ci ma ba ma nekk yow nga mën maa jur naan ma nekkee xale bu ndaw yow bi ma lay xam nekk xale bu ndaw di jàng métier ngay lang marché njaarim lang su lang bi doxul nga di coxé ah maa ngi nekk xale bu ndaw marché njaarim di jàng métier at lee Modou Mamour Diop ak ñoom Maam Sine Gajaga xam nga Maam Sine xaw ma leen xam nga yéen a dëkk marché njaarim la bool xam nga lépp li ma lay wax man da koo soo taxee fii naan ah, bi may kii boobu xale boobu ne ceem ko xool xam ne mun xam nga ne mun nga maa jur da mbëkk nga siim nga ràcc nga xoola xoola sa kanam gii ceem man xam naa la de bul ma tax a wax kii nag moom laa jéemuta jéem ma ko xam sax jéem ma ko gëstu liiru yow jéem ma laa xam jéem ma laa gëstu yow waaw merci léegi waa liiru yow ah merci da nga ne sa combat ak euh, kii nu mu tudd maanaam yaay monument Guédiawaye mais yow problème bi. bi dafa neexul. monument wala dafa am lu sa di ko naan daat. neexuñu yow mënoo am mënoo soo amoon jom di nga ne maay sa monument yow. ndax doomu Guédiawaye nga dëkk soo amoon jom di nga ne maay sa monument ndax waroo tax naan neexuñu. man falaa juddoo affaire soxor yow dimbali ma juddoo Guédiawaye ku juddoo Guédiawaye du mel ni yow du soxoree ni yow ku juddoo Guédiawaye du soxoree ni yow yéen yi soxor la wala lan la su hunta waay waa léegi kaay déedéet dina la laaj may ñu muy làkk tubaab te mënoo liir sa turu waa ji dina la laaj man waxumaa yow laajal yow da soxor non ki dafa soxor. non non dañuy soxor la wax muy kii te mënta tur bi. mais liiru liiru ngeen am ay bis de. liiru waaw am ay bis waaw. ñoo ngi ñaan yàlla yóbbuñu seen jàmm rek mi mës daanu ak Sa Thiès. booy ñaa xale bi féroce bi. li naan looy leb la rek bis bu ne bis lay fay. Mm. Balla Gaye li mu fi yokkul Tyson amul. boo ñaa ñëw ci làmb ji teg ko xool non teg ko dënn mais ërtal Balla Gaye ci kanamu àddina yëpp Balla Gaye na teg bis boobu loo yëg dara tous loolu mu def noonu ah. su làmb jaana ko def xale bi màgg na de <laughs> ñun kon léegi ñun ah, ñun màgg non yéen màggat ngeen ku màggat ni yéen ñaan ñii lay mel ku màggat ni yéen ñaan ñii lay mel ku màggat ni yéen ñaan ñii lay mel soo leen taxee na ñun dañoo màggat yéen ñaan ñii yéen a màggat yooyu xam taxawaay bu yàgg mun leen ko seen tànk yaa ngi ruux. ñun waaw. ñaar yéen seen tànk yaa ñu màgget ni yéen ñaar ñii lay mel yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm. tan fekk ko te tal ko. ba le premier janvier. du ku nekk nii kii sa làmmeñ di ratatati. dañoo màgget. yàlla baax na yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm Balla Gaye ak Gris Bordeaux summeeku booy yi daal ne laax ak ruy ñoom ñoo nekk nii booyee ko wax. booyeeku ñoo ko commenté. waa léegi ban ko defee. waaw ban ko commenté lamb ji gis nañu. waaw gis nañu laax daan na ruy. waaye nag kan mooy laax tere. <laughs> kan mooy laax moom la gars yi wax de. Sa Ndiogou yow lan ngeen nuroon. <laughs> yow ñëwee ngaa summeeku yow. noo man pire la yow ku la fay 200 millions <laughs> doo summeeku yow. yaa raw pire yow ruy nga yow ruy nga ruy. parce que seen bàmm ruy nga soo summeekoon ñu xam ne yow yaay ruy dëgg dëgg dëgg yow mi yaay ruy. aywaay mais mais mais mais en tant en tant que mbër en tant que mbër champion. waaw est-ce que est-ce bu ñu waxee sa akulaay taala. sama akulaay taala yow de mën nga ma wax sama akulaay taala ma am Boy Niang Balla Gaye Boy Niang. waaw ni ngeen koy laajee. waaw ngeen toll yow man may sëkkatoo ak ma waaye man faalewuma la bu ñëw beneen dellu man li jël tuuma bu ñëw beneen dellu man faalewuma la. c'est que da ngeen maa complot da maa réunion avant ma ñëw li ngeen war li ngeen war a wax ngeen war a wax. lan lan war a wax voilà dama lay jox exemple rek. lan lan a wax dalal a wax a wax soo ko waxul man après man naa ci wax. ñëwal wax équipe nationale bi dem nan ko ñaanal. li nga wax xamoo ci dara li nga équipe nationale xam naa ci ñaanal Salou Ciss yàlla Salou Ciss ñu waaw xam ne depuis coupe d'Afrique. non waaw merci maa tey xaw ma ko. li tax Saliou Ciss dama Coupe d'Afrique. Mm. mais sa rakam ñëw na. voilà benn la si amee waaw non dama koy wax dama man ba tey waxuma filo luy ŋaañ. léegi waxal ñoom ñoo nekk ay saytaane bëgg maa jaxase ak adduna bi. <laughs> dama ne Saliou Ciss waaw waaw gàcce ngalaama. Mm. waaw indil nañ fi li mu war a def def na ko. Mm. comprendre nga. tey jël bi ñu ko yóbbu Coupe du monde métti na ma. mais amul club waaw d' accord d' accord waaw mi ngi compétir. amul club lay compétir waaw merci amul club waaye ah, mi ngi compétir. kenn léegi benn affaire laa la xam est-ce agent am bi tamit. parce que d'accord waaye noo xamal la naa moom dafa def ay sacrifice pour Sénégal de dégg naa tey Gomis di ko wax. Saliou ah. Sy xanaa yow kooku daan Rasul la kooku non man ah, a xamul dara yéen yéen a xamul. yéen loolu moom Omar kenn. comme de amul club boo ko boo ko jëloon tey lan ban explication ngay joxe. waa léegi dem ñoo yow lan nga xam yow. léegi yow léegi yow dara nga xam yow nekk fi eh, la moo ca xalaat ci sa non non dama koy ñaanal. lamb ji doxatul yaa ngi ci football bi déedéet non dama lay wax tubaarikàlla macha allah lamb ji. Hmm. tubaarikàlla ñoo ngi sant yàlla waaye dama lay wax ci Saliou Ciss dama ne la. <coughs> suma rakk la suma frère la. waaw te man ku ma yëg. ma yëg la léegi tey jii euh, moom amul club. Hmm. d'accord hmm. waaye nag wax dëgg yàlla mi ngi compétir. fan lay compétir xaw ma ko. su ko suñ ko jëlul tamit. dama ko ko bëgg xamal moom dafa bëgg réewam dafa bëgg réewam laaj ko loolu su bëggul woon réewam du ñëw sol mayo réewam nekk jàmbaar laaj ko fu ñu fi coupe yàlla na ko yàlla defal jàmm ah. léegi waaw yàlla nga am club bu baax léegi tubaarkàlla macha allah wan na ko nag dama koy wan dama koy wan nag dama koy wax nag xale bu ndaw la nag xale bu ndaw lii yàqul dara nag ñàkk a dem coupe du monde bi demul yàqul ko daal xale bu ndaw ñoo ngi ñaanal Saliou Ciss mag yow bàyyi li nga wax Saliou Ciss mu ngi ko jóg astafurlah 33 ans yow lii mooy yaa ngi ànd ak sax xamoo ba nag yow. paa yow man tout à fait la ndax. ok sa caméra man xaw ma la foofu. mais déglu ma dama lay expliqué. ñoo ngi koy ñaanal daal ñoo ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm am club ak jàmm. Ah. lii ñu bi ñoo koy ñaanal. rakkam bi fi nii nag moom bu jé bu yeboo mu jéem koo bàyyi rek mu dem parce que. yow dimbali ma moom rakkam bi yëpp benn la yow dugal waaye dimbali ma dama lay wax may ma tuuti dama lay expliqué ñoo ngi ñaanal équipe bi. plateau bi ba léegi ñett saytaane fi ne. na yàlla defal jàmm équipe bi. ba nu us ñu indi coupe du bi fii yàlla mosal leen cat ak làmmiñ te ñëpp nag ñaanteen boo man nag ñàkk jël metti na man ndax sama frère la sama rakk daf maa yëg waaye ñu ngi leen ñaanal équipe bi mm-hmm. yàlla na ni yàlla may ndam ñu indi coupe bi fii ñëpp nag ñëpp yàlla na ni yàlla defal jàmm ñoo ngi la ñaanal mais man li may laaj aussi mooy ñàkk sélection am aussi mm-hmm. euh, loolu def normal la technicien yi loolu la wax parce normal nga wax ko mais aussi nañ xool logique waaw loolu lan mooy logique ah techniciens yi nga xamante ni xam nañ football dañ ne amul clip amul amul club ba pare nee naa sax man amul ba pare compét benn compétition loolu aussi fu ma la compétir ah. mu compétir Babacar bàyyi ma club laa wax laaj waxuma ak yow ngi mi ngi eh, ngi xoolal mi biti xoolal bàyyi li xoolal moom daal li may wax daal benn affaire laa yéen ñii sa genre yi. waaw ñoo yàq na nationale. waa léegi ñu maa tey. parce que waaw maa tey nag waroo koo wax ndax xoolal dimbali ma xoolal dogal fi waaye man waxuma yow parce que entraîneur mënul def liggéey ah, waaw waaw waaw man waxuma ba jël ñi mu war a jël man li ma wax man ayé ah, dama ko ñaanal waaw waaw dama ko ñaanal jël dama ne ñàkk jël bi mu ñàkk bi dem coupe du monde yàqul dara ci carrière am xale la liiru dara lii ñëw mooy dàq yàlla ko yàlla may club bu mag léegi liiru waaw loolu am naa droit wax ko d'accord waaw léegi liiru waaw liiru waaw liiru déglu ah, am nga ci droit liiru waaw liiru ma jigéen loolu d'accord waaw léegi liiru léegi ñu ñëw ci alika yi parce que li ngay daw xam naa naa ko. taw ma dara léegi liiru. waaw yéen mbër yi. waaw mbëru Géejawaay. waaw mbëru ak li leen Malick Gakou defal. waaw ci Sénégal ba nga xam ni. wilaay walaay ñëpp dañ daan copier di wax naan. a ah, Géejawaay ñun de caaray waroon nañu am Malick Gakou. waa kii waroon nañu am Malick Gakou. li waa Malick Malick Gakou démb Malick Gakou. Mm. di def. kii yoom investiram tegu leen fa seen tànk ak li leen Malick Gakou defar man euh, bu ko da ngeen a war a dem man de même bu toog yow da nga war a def man de wax dëgg yàlla waaw man ma tuuti Sanjo lan may déglu yow jaxase ngeen fi nekk invité na leen invité na la affaire saytaan lay def ah. ndax chaque jour su ma tuddee Aliou Sall rek mu ne ma ah léegi nekkul maire hmm. Ahmed Dara mooy maire le grand maire ba waaw loolu wax léegi ni tudd naa ko Malick Gakou suñu kilifa la doomu Géejawaay la loolu nga wax ni man Euh, wax dëgg yàlla fan yi jokkoon nañ téléphone ma na moom. waaw mais waxu la ko. nekk non non ma yëgu woon affaire bi sax. Ah, man après et puis dama fi nekkul dama voyagé woon. Mhm. Ah, ah, démb yaa yaa ngi yoon barki Cheikh Ahmadou. démb la woon Sanjoogu démb démb démb laa ñëw man affaire bi kañ la woon démb. Eh, xam nga ne ban heure laa ñëw démb. 8 mm. heures barki sëñ Fallou Mbacke nekkuma fa dama voyagé woon. dama voyagé woon barki Cheikh Ahmadou Bamba depuis samedi mm. jóge samedi laa fi jóge voyagé mais bu ah, wax dëgg yàlla yëguma ko waaye wax dëgg yàlla mm. jokkoo nañ téléphone fan yële passé waaw ah, jokkoo waaye wax dëgg yàlla de ah euh, su ma ko yëgoon man wala mu fekk ma fi mm. su ma ko ma fi dinaa dem ndax su dul dara su kilifa la biir Géejawaay te jokkoo nañ yàgg na jàppale mbëri waaw d'accord yàgg na jàppale mbëri Géejawaay loolu lépp dëgg la ma wax dëgg yàlla man euh, ragaluma fi ma jëm ay Lat Diop ak ay Aliou Sall waaw non non non non non ñooy samay nit lañu man taxaw na Lat Diop Malick Gakou njëkk a nekk seen nit waaw dëgg waaw eh, waaw d'accord man Malick Gakou mosuma lekk xaalisam ah waaw yaa la barke Cheikh Ahmadou Bamba dëgg laa wax billaahi wallaahi taala mosuma lekk xaalisam mm. waaye na wax dëgg yàlla jàmm laa ko yéene waaw ndax doomu géejawaay la ndax man géejawaay la am géejawaay laay tuuti roo lan mooy seen relation waaw may ma tuuti rek may ma tuuti may ma tuuti rek may ma tuuti saytaane nga dag may déglu da nga may déglu xawma déedéet soo waxee loolu dafay mel affaire saytaan te mënoo mu nekk maire Guédiawaye yàllaa ko def yàlla na ko ndam li jik yàlla na nekk maire ba li mu bëgg ci maire Guédiawaye yàlla na ko yàlla defal saytaane nga jëflante ak yéen en tant que non non waaw da nga may déglu da nga may déglu xam nga fan yële ah, def na benn geste boo xam neexuma ba ma génn classe ko maali ah, ah, Ahmed Aidara def na benn geste boo xam neexuma mm. ba ma génn ma classe ko ci mooy booy bi suñu caatu waalo bi doon bëre mm. euh, at Kalmu Ndour Kalmu Ndour dëkk Pikine mu jàppale Calme Ndour jàppalewul caat Calme Ndour moo tax moo ko ñëw no ba bi euh, Ahmed dara moo ko woo ba biroom mu teral ko jàppale ko ba booy bi taxaw di ko gërëm comprendre te caat ah. su dee benn fan ñaari fan jàppale na ko te booy bi géejaway la dëkk comprendre mm. loolu bi mu amee man génn naa non non génn naa wax ci mm. waaye man su ma waxee pare su ma ci pare pare naa ci comprendre du ko wax rek pour ëllëg moo tax may wax loolu <coughs> su dee mënut a jàppale euh, mënut a ñàkk jàppale Calme Ndour mm. mbokkam la ñoo bokk dëkk xanaa nee na ca île ba. booy bee ko wax. léegi léegi li gën a rafet. kii yow yaay meeru géej way. dañu jàppale ñaar ñëpp. voilà voilà nga tëddee njaaxanaay ndax euh, yow yaay meeru gox bi. waaw loolu dëgg la waaw yaay meeru gox bi loolu la. que euh, yaa ngi wax Aliou Sall. waaw non Aliou Sall tudd. non non dégg non yàlla non kii moo ko tudd kii moo ko tudd ah, xam nga lan la man. Euh, dafa mel na seen diggante ak Ahmed daal demul. non non bu wax loolu ñun ñëpp benn la Ahmed doomu Géejawaay la. Mhm. doomu Géejawaay ndax soo waxee la affaire saytaan ngeen ni affaire saytaan dafay mel ni man. da nga contre Ahmed non non kan moo ko wax. barki Serigne Fallou Mbacke contre ma ko billahi wallahi taala contre Ahmed pourtant man lekk naa xaalisam. ku mhm. lekk naa xaalisam. Ah su dee ñaar dërëm sax lekk naa ko ndax tey jii ba combat Balla Gaye bii passé nii euh, ba combat Balla Gaye bi passé at Bombardier bi mu taxawee di jënd ay bii fekk naa ko ar bu raax hmm. mu jënd ay billets yëkkati billets yi may ma hmm. ah kon nag kon lu baax la. aywa ah, may ma tuuti eh, kon yow boo waxee loolu yàgg ngaa lekk xaalisu Malick Gakou. parce yàgg naa jox Balla Gaye kii nga dem añ ca ba. non non yàgg ngaa añ non non non non danga may déglu danga may déglu yéen affaire saytaane ngeen ne man mënu leen maa jaxasee. alors waa Géeja way man géejawaay laa am géejawaay laa tiitaroo ku fa def lu baax ma wax ko ku fa def safaan ma wax ko. dëgg la kan moo fa def safaan. xaw ma ko ku ko mënta dama lay jox exemple Aliou Sall damaa yàgg seq ak moom tranga xale di bëri ma dem ci moom ne ko jàppale ko mu jàppale ko. waaye ku def lu baax dama koy wax. si si c'est droit la. xale am combat jàppale ko mu jàppale ko. amet mi amet mi ngi jàpp waaw may ma tuuti may ma tuuti may ma tuuti man du ma sakk jëf man du ma saytaane du ma sakk jot du ànd ak kii mu daanu rek ma taxaw di ko xarab wala di dëkk di tudd ko fa nekk léegi mel ni man euh, dama seq kii eh, dara xam nga ne daanu bi neewul ngalañ waaye bu ne woon ngalañ nga kii ko bu doon président Macky Sall daanu na nga bàyyi Aliou Sall non non wax day rafet waaye <laughs> daanu bi jël bee demee ko gis nga waaye euh, kii di naan di te mu naan ma la Aliou Sall ba ma koy xam nekkul maire waaw barki Serigne Fallou Mbacké nekkul maire muy ñëw bi daanu moom Ah, kii Lat Diop a ngi nii. Hmm. su may taxaw tudd dama gis ne jàppale booy moo tax ma taxaw di ko wax. te euh, ñëw naa foo mu man teral na ma teral na ma man ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul yëguma la. Hmm. man nag ñoom ñëpp laa yemale. Hmm. ndax man géejawaay moo ma ñor. ku ci yëg géejawaay rek nga yëg ko. géejawaay moo ma ñor yow ba léegi. man géejawaay moo ma ñor maanaam yow ba ngay wax ci géejawaay ba léegi. waaw li la defal rek ngay wax loo defal géejawaay yow dara. dem daan. <laughs> yow de xam nga ci dara yow su ma la. rek la defal géej waaw dem bëri ji daan waa géej way jooy. sa diggante ak yàlla saral ban la. non dama lay laaj. ban ndam nga fi yow de war ngaa sant waa Walf. <laughs> yow <laughs> war ngaa sant waa Walf de. non non déet non dafa ndax waaw loolu li mu taxaw moo wax moo dama de war ngaa sant waa Walf. Ah. ndax avant ngay ñëw Walf. la nga nekkee woon. war ngaa sant waa Walf waa Walf la defar. léegi lan la li nga nekkee woon xamoo ko. lan nga nekkee woon Guédiawaye Sadio Sa Ndiogou lan nga nekkoon géej wala. liggéey daan doy ah, ah, ah. <laughs> lan laa nekkoon géej wala ndànk ndànk ndànk rek. waaw lan laa nekkoon géej wala ndànk Sa Ndiogou. Sa Ndiogou bul ma wax loo bul ma tàng loo. Sa Ndiogou day sos day kere. man kere ah. bul ma yëngal waay bul ma wax loolu sunu grand nga woon waaw yow yow dimbali ma naa sunu nga yooyu am ak téeméer yoon mën maa jëm naa sunu grand nga woon <laughs> yow xam nga yow euh, yow yow bëggoo géejawaay xam ne nga géejawaay nga dëkk yow géejawaay ñoru la yow bëggoo géejawaay soo fa juddoo tam nii ngay waxee war a ko wax nga am lan nga defal waa géejawaay lan ah doo ko wax de man géejawaay samay rek lan loo leen defal la mais loo leen defal lañ laaj déglul <laughs> ma leen defal xam na ko man yàgg naa fa indi nam nga ne moo yàggoo fa indi nam bëri daan koo daan koo daan bari na. kan waxal benn bu la xam nga sulum la. waaw. liiru mooy sulum la. boo xam ne. non dama barki rasulullah damay lim àggale guma non dama koy wax ne kooku non xam nga damay lim àggale guma waaw waaw. lii mooy defe

saa moom coppe coppeewu ketchup la. ketchup waaw sama rakk la sama rakk la. sama ketchup rakkam la ketchup li am na lu mu wax lu mel. liiru statut spécial la ko gars yi <laughs> pour lan yi di la fay. waaw non non naturellement parce que yow vraiment liiru mënoo ñàkk bañ a. waaw waaw non non waaw sa waaw lan moo tax ma tudd kooku nga ree ba jóg. ba jooy ree ba jooy lan moo waral loolu. Eh, noonu dañuy waxtaan rek yow xam nga ko. yow xanaa affaire këccëg bi laa bëgg nga relancé. xaar ah, même ah mais mais ah, non Sanjoogu mi laa non Sanjoogu xam lan la xam na ko. Ah, barki Cheikh Ahmadou Bamba surum ne fu bëreeg baax na ñoom pare ñu jox ko ma bëreeg moom. parce ah. que maa ko gën a làmb ji. surum ne ko. bilaay surum ne moom invité na ko fii pour naan émission saa moom. waaw surum ne yéen di nettali. di ay combat. waaw surum ne waaw ku mu song bu dee nii ne après nga daan ba. maanaam surum <laughs> ne. saa surum ne affaire affaire keccam bi keroog wax euh, Omar Dimassi Diomène il paraît que dafa bëgg a euh, benn kuréel boo xamante ne nii mooy euh, ñi nga xamante ne dañu nekk bitim réew di di di ŋàññi sëñ bi liggéey bi mu def ak di ko sëriñ Touba waaw mu ni nee na nag dafay taxawal benn kuréel boo xamante ne nii day dem ci sëñ Bass Abdou Khadre mu jox ko ndigal à ce mu dem mhm. képp ku defati loolu mu dal sa kaw yéen war ngeen koo conseiller parce que moom il n'a même le profil pour li def loolu Ketchup ku ko xam-xam ne ci fecc lay yëngatu bu bëggee dem si sëñ Bass Abdou Khadre. pour waaw loolu mu de loolu mu wax noonu am na ci droit taalibe la. mais loolu a yéen yéen xam ay dóor. loolu dafa dafa dafa yéen yéen a xam ay dóor. yéen ñii yéen a xam ay dóor. nan la ñu xamee si yéen a xam dóor. ndax soo taxaw naan ay loolu kii taxaw naan loolu est-ce que du ay dóor yow nga naan ay dóor loolu moom taalibe la. am na droit su ma waxee dara su ma waxee dara am na droit man mii tey soo waxee sëñ bi loo wax ah loolu mooy seen seen yoon yoon eh, xanaa yoon kenn kenn wax dara kenn waxul foofu kenn waxul loolu am ah. la taalibe am na ñu ne jekku ci jekku ci kay parce que fekk dong lay def ak waay taalibe la daal hmm. ah. eh, yow li nga wax noonu nag léegi liiru mel na liiru dàq fecc keccum de yoo dafa dégg dafa dégg de ah, non moom après bi mu amee problème ndigg boobu la ñu nopp la dama am problème

sa caay da nga daa sol. ah <laughs> liir day kere non kamul kere tànn biir toj na ko tànn biir tànn am na caaya du bula. ah am na waaw. moo fi dàqoon a lëmbal. ah waaw waay. a lëmbal. Ah. waaw. Ah. kan man mi waaw léegi la dem ba mënatul lëmbal. ndax jaawale woo sa waaw yow jaawale yow biti doo bàyyi. moo tax ma la si grand yi njëkkee sunu grand yi la. kan mooy seen grand. yow man sama papa nga. fekkee nga mais liiru léegi defal sama papa nga. waaw liiru sérieusement nag léegi nag géejaway. am na leen loo wax yaa doon wax sànq ci mbiru. waaw non non ñi nekk bitim réew. waaw am na loo leen loo ci war a sëriñ si nekk fii di leen nax ñu leen di jox seen xëy ñu nekk ci yow xanaa xanaa bi nga demee ci sa voyage bi da nga gis kaay yu mel noonu bari na sama portable li ci nekk ci ay audio waxal waxal audio yooyu su ma ko waaw waxal yan may ma tuuti rek da nga waxaale ñu boo xamee seen tur benn audio boo xamee seen tur ko may ma tuuti Omar may xam nga biti mm-hmm. xale yi dañu am suñuy rakk am mm-hmm. suñuy yaay am suñuy mag am suñuy papa yu nekk bitim réew di daan seen doole mm-hmm. léeg-léeg ñu am ci ay problème yu nu nekk. Mm-hmm. waaw di gis ku génn ci internet bi. di wax di wax mën naa lii mën naa lii mm-hmm. mën naa lii mën naa laa. c'est vrai mm-hmm. ñu gis nga ta suñuy wax dañuy. seen numéro seen numéro day kii suuf. léegi après ñu jël numéro yooyu di leen ci woo. suñu leen ci wooyee. comprendre ngay wax ak ñoom di wax ak ñoom. Mhm. ba leen temps nga may fay temps nga may fay ñu yónnee la xaalis. te lañ lay a jot te lañ lay a dégg dootuñu la jot. su la wooyee dootuñu am naa ci ay audio. barki Serigne Fallou Mbacké. Mhm. daan doole yi nga xam ne ñoo nekk bi dina daan seen mhm. doole. ay doomu sénégalais. waaw di gis sëriñ si nekk ci internet bi. di wax. billaahi wallaahi wa taalaahi. waaw saa njóogu dama ci am audio soo bëggee audio yi mën naa la ko tegal après sunu wéetee. waaw te nag man. Ah, du ma tooñ Mm-hmm. waaye su ma gisul lu jaa su ma gisee loo xam ne mm-hmm. jaadul dama koy wax waaw na ma bëgg nag sama mbokk diaspora yi waaw ñu yeew ci côté boobu ñu teey ñu teey mm-hmm. du lu gis nit ci internet bi rek ne mën naa rek ñu woo ko di wax ak moom envoyé ko seen xaalis doon ko jot dootuñu ko jot wala ñu envoyé ñu jël niim ak kii def ko ay biteel ah oui ah ah ay niim ah, loolu da nga koy waaw am na waaw mm-hmm. ah, dinañu jël niim wala ñu jëlewul ci benn garab boo xam ne soo ko jàmbee dafay xonq wala mu jàmb ko mu weex fi def ko ci biteel wala ñu jël ay këyit def ci xaatim doo xam loo ci bind ba pare ne euh, GP bi joxal ma ko GP diw waaw GP bi indi la ko ne mooy après seen bi wax ah, sangoo ko wala soo xëy dee ci diw nan bàyyi yooyu nan ko bàyyi baaxul Mm-hmm. baaxul sama mbokk bitim réew yi daal ñu nekk diaspora bi maa ngi leen di wax ñu yeewu ci côté boobu waaw sëriñ si nañ ci yeewu ci côté boobu ñuy naxaate ñu addu mën a nag amul ñu man am na ñoo xam ne man nanu tubaarikàlla macha allah mm-hmm. suñ la defalee da nga koy gis te ñi man sax duñ la laaj xaalis dañ lay defal ba noppi mm-hmm. nga soo ko joxe nga doo ko joxe nga gis. ba pare doo ko joxe te ñoom ñoom en général liñ la wax noonu mooy liñ leen di laaj lu takku lay doon. en général yow yow laaj te ñu ci bari nag soo di léeg dem doxaani sax. Mhm. ah woy bari fi. doxaan waaw am na ci benn waay boo xam temps yi da ko def sama benn xarit. ak ah. jëf ju metti ba léegi waa maa ngi koy wër mu gisuma ko nag. ah wër ko kañ. maa ngi koy wër. liiru euh, sa jeex na. lan ngay non tey dañ la. non tey 40 minutes laa la non non da doon wax ci lamb ji. Ah. ci lamb ji la ñuy wax dañuy wax ci lamb ji ñu tëjee ci lamb ji. Ah. di ñaanal sama rakk yi. nekk géejawaay am ay combat mm. yàlla may amiin euh, le premier janvier mm-hmm. yàlla may ñu ndam lu sedd guy saytaar Balla Gaye mooy bëre le premier janvier ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy ndam loo xam yàlla nañu ndam lu jik mm-hmm. waaw te saytaane yi nga xam ne booy ñaar hey rek mm-hmm. rek saytaane yi nga xam ne ñoo nekk géejawaay wala ñu dëkkoon géejawaay te dëkkatunu fa mm. sayta yàlla na yàlla yàlla musal ci ñooñu <laughs> ñi koy def rek de ku ko mënta def rek yàlla na yàlla yàlla musal ci ñoom waaw tey di ñaanal Balla Gaye yàlla ko yàlla may ndam lu seen ku dëkk géejawaay daal da bëgg géejawaay da bëgg géejawaay diiru tiitaro Guédiawaye waaye dëkk Guédiawaye pare bëggo Guédiawaye yàlla na ci yàlla di ñaanal euh, Jackson mooy bëri le 25 décembre yàlla may ko ndam yàlla may ko ndam at kii itam sama booy bi Marley di ñaanal Marley yàlla na ko yàlla may ko ndam non dañu defal ndànk tàggatoo gu ma damay wax après damay gërëm. <laughs> Ah, ah. yàlla may ko ndam Marley. ah su fa jógee yéen xale yi am combat géej way yëpp saa kees combat bi mu jëm tam yàlla may ko ndam lu sedd guy. liiru taa bi jeex na yi ak ñi nga xamee ne neen ay papa la noo ñoo ñëpp ñu tëj seen làmmiñ. xoolal moom yow mi nekk dégg nga biti yàlla na ñi am combat géej way yëpp xale yëpp yàlla nañu yàlla may ndam géej ñi amagul combat yàlla nañu may amiin di liiru léegi Amadou Tidiane Fall ak ñoom guy gi ay ñoom guy gi ñoom ñëpp may ak ñoom Alioune Seye yàlla na yàlla may combat waaw Amadou Tidiane Fall nee naa ko kooku dafa DG mooy Amadou Tidiane Fall sama nit la dafay def ay social baa xam fii ku fi def lu baax ñu wax ko ku fi def leen ñu wax man askanu laa ah, liiru liiru jeex na waa dama lay expliquer di gërëm waa Guédiawaye ñëpp di ñaanal Guédiawaye ñëpp am jàmm di ñaanal waa Guédiawaye gépp yàlla defal leen jàmm comprendre nga ndax su may wax da ngeen may bàyyi yéen a ma invité wax ko temps bu jeex non du question temps bu jeex saa jógu da may dégg waaye dama ay du question temps bu da nga ma wax sànq may la Amadou Tidiane Fall sama waay la mooy directeur DMTA. dafay def lu baax moo tax ma wax. waaw jéem a wax nañ ko ñetti yoon waaw dama dañ koy répété waat. ah waaw waaw liiru. dëgg la di nuyu waa Guèye ah, di nuyu waa Jasparaam ñoom Moo Ndiaye directeur Serigne Madeleine. sécurité ñoom Mafal ñoom ñoo ñoom. <laughs> woon sécurité. Euh, kii euh, ki euh, Afia ñoom Mor Ndiaye. ah liiru jeex borom Kolda. sécurité la ñuy wooree borom Kolda di nuyu waa Amérique gépp.